jërë ngeen jëf mbokk internet yi da leen jàmm ci seen récap du jour ñu ñëw ak yéen ci li gën a ci xibaar yi affaire kilifa ak euh, Simon ak ñaca euh, laale mu mel ni rek mu ngi di gën di euh, compliqué ba tax na daal parquet bi la mu jàpp daal jamono ji moom moo di rek dix infractions yoo xamante ne ni moom lañ leen fas yéene toppee ba tey nag ci wàllu woowu ña leen di layal nag ni ki ëllëg la ñu war a jàkkaarloog taskati xibaar yi ngir mën a rek indi ay leeral ci yenn ci ay ponk trafic de passeport diplomatique bi nga xamante ne ni moom moo lëmbee euh, assemblée nationale euh, jamono ji ñu ngi ñu yëgal ne rek ñaari député yi nga xamante ne daal ñoom ñoo laale ca mbir ma di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye am na ci yeneen député yoo xamante ne daal jamono ji pare ñu benn yoon ngir yëkkati seen malaanu kër laay ngir rek ñu mën a dem wuyu ji yoon. ay Diop Fall nekk taskati xibaar ñëwaat na rek daal di chargé ki nga xamante ne moom moo di euh, Ousmane Sonko daal di xam xamle rek daal yenn ci ay taskati xibaar dañoo am rek. faiblesse am ba tax na rek euh, duñu ko wax euh, dëgg mbokkente na ti pàcc yi gën a fës nag ñu ngi noonu ñu ñëw ak yéen ci euh, jukki xibaar yi àllarba tey yemoo ko fukki fa ak juróom ci weeru septembre dinañ tàmbale nag xibaar yi ak mbiri ki nga xamante ne moom moo di Simon ak Kilifeu ak mbiri trafic de visa bi nga xamante ne ni moom lañ leen toppee mu mel ni rek tey ci àllarba bi la ñu jàkkaarloo ak juge d'inscription d'instruction ci affaire de trafic résumé de passeport ak visa biñ leen euh, tuumal eh, bu ñu sukkandikoo nag ci libération la mu euh, xamle mooy rek parquet euh, la mu ñaan rek moom moo di ñaari rappeur yooyu daal lañu ñu tëj leen ràpp ci euh, prison bi ci mbir mi nag mu mel ni rek parquet bi daal xoful benn yoon ci kaawu ñaari rappeur yi la di Simon ak kilifa mi nga xamante ne ni daal toppee nañu leen association de malfaiteurs corruption tentative de trafic de migrants ak faux usage de faux ci document administratif loolee tax daal bu ñu daal Dissi moo ak kilifa euh, prison euh, la ñuy mujj euh, juge nag bu deuxième cabinet daal bu toppee bëgg-bëgg procureur bi daal amaana daal ñaar ñi ne daal ca prison la ñuy mujj waaye en attendant rek juge deuxième cabinet bi dina statuer tey jii ci àllarba bi ñu xaarandi rek fa fan la mbir ma di mujj waaye itam ba tey ci mbir moomu ñi nga xamante ne ñoom ñoo di layal ñaari rappeur yi le nekk seeni avocat wax nañu rek ni ki ëllëg dinañu jàkkaar jàkkaarloo taskat yi eh, xibaar yi daal di nag indi ay leeral ci eh, mbir ma naka la eh, tëddee fële ca tribunal bu Ndakaaru ginnaaw bi nga xamante ni rek amal nañu ab audience ak juge yu deuxième cabinet affaire itam trafic de passeport diplomatique bëri na nag ci ay député yoo xamante ni yéen daal jamono ji fële ca assemblée nationale nanguwuñu benn yoon ngir rek ñu yëkkati malaanu lay député yi leen di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye mi nga xamante ni daal trafic de passeport diplomatique doon nag ab coow loo xamante ni daal lëmbe na pencal ndawu réew mii ba tax na nag yenn ci ay seeni collègue daal pare ñu benn yoon nag ngir livrer leen ñi nga xamante ne moom moo di yoon ngir ñu def rek seenub liggéey moo tax daal ñu ngi def rek seen kéemtulaay kàttan ngir mën a rek bloquer processus su levée immunité parlementaire u ñaari député yi le nekk nag ay député Benno Bokk Yaakaar ba tey nag ci mbir moomu bu ñu sukkandikoo ci yenn kaabile tribune la mu xamle waat daal ca loolu moom moo di daal wàññi waat nañu juróom benn ci ay député yoo xamante ni daal impliqué wu nañu itam ci affaire bi nga xamante ni daal di lëmbee assemblée nationale nekk mbiri trafic de passeport diplomatique maanaam rek ñaari député yi di du Sall ak bi Biaye juróom benn ci ay député yeneen toftal nañu ci ci rek affaire trafic de passeport diplomatique yooyu daal di cay nag laale ba tey nag ci yéenikaay bi la administration pénitentiaire bu euh, rëbës daal jamono ji ña ngay aménager néeg ya dono nag ay chambre VIP yoo xamante ni daal ñi li di Khalifa Sall Karim Wade ak Bougazelli fa lañ leen dencoon na di xaar nag yoon def seen liggéey donc rek ci euh, tënk daal député yooyu itam euh, même soob rek la ñuy am ndax bu ñu moytuwul daal fële ca rëbës la ñuy euh, mujj di xaar tamit ñoom euh, seenu sentence bokk na itam ci li ñu jukki ci euh, xibaar yi mbir yi Aïssatou Diop Fall nekk taskati xibaar mi nga xamante ni ne chargé waat na ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko daal di nag laalaal ci yenn ci ay taskati xibaar daal di wax rek ne moom jàpp ne ne ñoom daal dañu am faible pour Ousmane Sonko ba tax na nag duñu ko wax dëgg Aïssatou Diop Fall nag bokk na ci li mu xamlewaat moom moo di rek dafa yërëm ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko ndax it nag jamono ji cinéma dong lay def waaye ku ko xool daal xam ne nekkatul rax ci dool yi nag su fekkoon ne moom moo nekk à la place de ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko dinañ def kéem tolluwaay kàttan da ngi seetal deram ndax it nag jamono ji dañ ko mettre rek sous contrôle judiciaire te deful lenn rek benn jéego ngir rek seetal boppam na jàpp rek ni jamono ji daal moom ci wàllu boppam Ousmane Sonko amatul rek issue ndax kamu ko sekkal di Macky Sall daal dafa doon ab adversaire boo xamante daal daanaka dafa dafa bëri doole eh, ci wàllu people itam daañu ci eh, dikk ak yéen daal di eh, ñëw nag ci affaire yi nga xamante ne moom moo di ay Aïda Samb ginnaaw bi nga xamante ni daal ci ay jëmi jamono la am boroom kër moom nag ñu ñu yëgal ca ay mbiram daal moom moo di rek mook boroom këram boobule dañoo nekk fële ca Paris daal di fay nag célébrer seen lune de miel te itam nag amuñu benn complexe dal daal di affiché wu en public ngir rek dalal xelu ay fansam di leen won rek jamono ji daal elle hyper heureuse ak ki nga xamante ni daal la moom moo di euh, boroom këram ñu fàttali rek daal ci ay jëmi jamono yu ñu génn daal kii di Aïda Samb daal di am boroom kër euh, mu nekk nag ab Gambien boo xamante ni daal ab homme d'affaires la euh, moo mujj rekk daal di jol jël xolu xale bile ba jamono jii daal mu ngi nekk madame Diédhiou ci ab vidéo daal bu ñu euh, fësal lañ leen wone ñoom couple Jeeju euh, moom le daal euh, ku ci nekk rek di feddale cofeelam ci morom ba di leen ñaanal rek seen sëy barkeel